ñaajo moom la yéene kay xëy di waxtaane ci seen xëtu njëkk vox populi nañu coow bi tàmbali na ci te ci saanaar wi réew mi nekk ngir waxtaan ba xam kañ la war a organiser élection présidentielle ci réew mi boole ci ki tey ji bu ñu demoon ba avril mandaam njiit réew mi jeex ne si def waaye liy wax ji jamono ji vox populi nee nañu mooy waxtaan yi ana mën a jur ne bari nañu ne demuñu ci fukki candidat ak juróom-ñeent waroon a G25 di kuréel gi ëmb yi ëpp ci candidat yi nee nañu demuñu di jalo ji ak Macky li ñu nar mooy xëy dem ca conseil constitutionnel tey yi ci yor yor maanaam bu jotee ngir kalaame ji fa xew ci réew mi journal bi mi ngi ñuy jàngatalit li war a mën a doon tontul waa conseil constitutionnel ci mbir mi les économies ñi ëpp ci acteurs yi war a séq élection présidentielle yi dañoo boycotté woote Macky bi ci candidat yi ñu jàppoon ngir ñu waroon a bokk ci woote yi waroon nañu dialogue bi ñu war ubbi tey ji ci altine ji Macky Sall woote na waa FC 25 gàntu nañu libération di ñu xamal ci xëtt mu njëkk ne waa FC 25 fa ñu ngànkoon fa la ñu ngànk ba léegi nee nañu ñoo lànk kandaare demuñu di waxtaani waxtaan wooyee Macky Sall woote ni ko journal lañ fo gisee mooy ndajam naxante ne bu weesoo Macky mi ko woote ñi te fas yéene wuy ji bi nee nañu mooy waa kërëm yi di waa Benno Bokk Yaakaar waa Parti démocratique Sénégal woon ci parrainage yi ñu nar a gis ci réew mi moo di tegaat processus électoral bi ci suuf tàmbaliwaat beneen anki ne acteurs yi ci géopolitique bi tey la ñu gën a wute gis-gis ak taxawaay ci processus électoral moom enquête mi ngi ñuy fàttali ne ci fukki candidat ak juróom-ñeent yi waa conseil constitutionnel jàppoon ngir ñu bokk ci élection présidentielle yi fukk ak juróom-benn ci ñoom nee nañu na leen ko Macky Sall jéggal maanaam bañ nañu ne duñu dem bokk ci waxtaan yi waxtaan yi Les Échos mi ngi ñuy xamale jur na ak réeroo xaat ci mbokki Ousmane Sonko mu di parti Pastef ga woon Imam Dramé na li a dem wujji bi ci réew Sonko mbaa ci loxoy Bassirou Diomaye Faye élection présidentielle yi waroon am démb ci réew mi te amul Le Quotidien moom la xëyee ak vote symbolique bi nga xam ne yenn ci candidat def nañu ko nee nañu ay wote amu fi waaye ñoom wote nañu ba def lu ñu tuddee deuil électoral réew mi Quotidien nañu bésub démb bi dee su ko fàtte 25 février gravé en noir journal bi boole kook fotob Khalifa Sall bu muy woote moom Khalifa Ababacar Sall borom taxawu direct ci news xëy na di ko woo ci xëtamu njëkk journal bi nañu keroog 22 février 2024 dañoo bindoon bu wérul ngir doon ko weddi faxas gi ñu doon faxas tuuma yi bi nee nañu dafa ñëw gën yokk jeexi jaaxa moo waral ba journal bi di direct news di sàkku ci moom Khalifa Sall mu génnee décret bi firndeel na delloo na nationalité France am public yéen kay nañu patrimoine bu bari ba mu am ca France mooy di ko gën a moom Khalifa Sall ne donte nee nañu delloo woon na nationalité France am en 2015 mi mu bëgg bokk ci présidentielle